sa démb xam sa tey xam sa tey une production de Goethe Institut en collaboration avec les Archives nationales du Sénégal et Kër Leyti la maison de l'oralité et du patrimoine. àdduna yàgg na waaye ëllëg ci démb lay jóge déglu leen ma may ma nopp ma nettali leen jaar-jaaru Sénégal bu rafet bii sunu réew mii may leen ma nopp ma ànd ak yéen ñu tukki ci jëf ju mag ju réew mi may leen ma nopp ñu dundalaat sunu xel ak sunu fàttaliku ñun doom yi fàttaliku ay doomam di góor di jigéen may leen ma nopp ñu wax ci ñi nga xam ne seen jëf rafet na ba nettali bi rafet may leen ma nopp ndax sunu taarix dafa rafet te jar a xam may ma nopp seen noppi xol nag laa soxla ngir ma ànd ak yéen ba ci suñ biir xolu démb may leen ma nopp ngir ñu mën a dund sunu tey may leen ma nopp ngir ñu mën a waajal sunu ëllëg ñun ñooy taarix xam sa démb xam sa tey di waxtaane ku màgg di waxtaane ku sell di waxtaane ku set di waxtaane ku sedd di waxtaane ku yiw di waxtaanee jàmbaari islam di waxtaanee jàmbaari diine xam sa démb xam sa tey El Hadj Malick Sy borom gàmmu gi El Hadj Malick borom zawiya yi El si Malick Sy borom werdu yi El Hadj borom xutba yi El Hadj Malick Maodo lañ koy wooyee. ma nag boo ko déggee ci pël mooy ku màgg ki El Hadj Malick si ma nga gànnee àdduna ca gaaya ñu jàpp ne la loolu nag ma ca penku Dagana ca biir Waalo ana kuy waay juróom wu góor xanaa maam Sidi Ousmane ana kuy waay juróom wu jigéen soxna Fatimatu Wàdd Wele ñu gën koo xam ci maam Fa Wàdd Wele El Hadj si ak a jar a xam ndax moom li nga xam ne maam Sidi Ousmane ko meññ si Sawande soxna Fatoumata Wade Wele meññi ko mu gën a àdduna ca gaaye ca wetu Dagana nanu xam ne donte am nañu ñu jàpp ne kenn xamul kañ la natt nañ ne 1855 la waaye lu ñu war jàpp mooy bu nu jëlee néegu baayam mën nañ leen topp ba bundu ndax foofa la nu jëm ca suyama biir Podor gi ñu ne tey wàccit jëm Jolof ndax waajuram maam Ousmane dafa am lenn ci am njàngam lu mu mottalee ji gànnaar waaye bi mu agsee gaaya ngir jàng fa téere bu mag boo xam ne ka ko bindoon mooy suñu maam Malick Sow radiallahu taala anhu fala xamanteeg sunu maam ju sedd ja di maam Fawadu Wele yàlla may àdduna mbaaxuk alaaji malik si moom ci boppam meññ ca maam Thierno Ousmane si moom nag dafa gane àdduna fekk maam alaaji Malick juddoogul looloo tax ñu ne moom xamul baayam ndax bu la yàlla bëggee wéttali bu ko neexee mu wéetal la ci wàllu waajur loola moo tax liñ mën a jàpp mooy waajuram wu jigéen ñëpp ànd nañ ci ne ndeyu daara la woon amoon yërmande ci dongo yi amoon nit ak toppatoo ci ñoom ba loola jeexital ci njabootam loolu moo tax ama laaj Malick bi mu waree jàng alxuraan teel na koo mokkal ba mu ko waree mokkal ba mu waree am xam-xam teel na ko jàng ba mu ca waree sonn teel na caa sonn ba ko yàlla waree fay teel na koo fay ba wis ko moo tax a nga jàngee diine gaaya ana kun ko dénkoon xanaa turandoom ana kuy turandoom Thierno Malick Sow ana ku ko mottalilum njàngam xanaa nijaayam Alpha Mayoro Wele te ca kooka sax la jële werd ci liñ ma ngi nettali bi muy am fukki at juróom-ñett werd nag moom boo ko déggee ay ñaan la ak lawraat waaye bëgg njàng mu mat bëgg xam-xam bu mat bëgg a jege boroomam moo tax mu solu dàllam ana fu mu dem wuti fa xam-xam dem na Kajoor ana fu dem wuti fa xam-xam dem na Jolof ana fu mu dem wuti fa xam-xam a dem na Njaambur kay ana fu mu dem wuti fa xam-xam dem na Ndar ana fu mu dem ñu ne fu mu tegut ci tànkam te Fuuta bariwut ñu ne ana fu mu àgg ñu ne bëtt na frontière ba àgg Mauritanie ñu ne Alaaji Malick si moo demoon Mauritanie moo daloon Ndar 1884 ñu ne moo jaaroon Louga moo wàccoon piir soog a ñëw Tiwaawoon Alaaji Malick bi mu tollee fi ko àdduna soxlaa fa la wëlbatiku moo tax mu dégg Maodo rek wuti yàlla Maodo mooy kilifa gi loola tax nag musta noppaliku musta aadndiku lu man ñaar fukki at muy wër ngir am xam-xam ba mu soxla looloo tax ba yàlla sole ba mu fees doon na géej mu laan gundaa munta dékku waaye nag ca ñëw ñépp nangu ne kii mooy xar kanamu sufi mooy xar kanamu alxuraan mooy xar kanamu addis mooy xar kanamu lislaam mooy njiitu tijaaniya te bu nu jàppee sax ba muy dem Màkk moom maam Alaaji Malik di 1889 booba ku gëmut yàlla doo dem màkk ku ragal doo dem màkk ku tayal doo dem màkk ku yàkkamte doo dem màkk ndax yoonu màkk sori na yoonu màkk yombut te yoonu màkk métti na waaye mu xam ne yàlla jaral na ko ko waaye gis ngeen ba mu dellu see ana num def dem ndar ana lum fa samp xanaa zawiya ana kañ xanaa 1892 Alaaji Malick si ba mu fa jógee fu mu dem ñu ne ñu dem na gànjool ñu ne fu mu ca teg ñu ne njarnde ca gannaaw piir ñu ne lu fa doon def ñu ne jàngale kañ ba kañ 1895 ba 1902 ñu ne ana lu tax mu dog ko 1902 ñu ne dogu ko kay da koo tuxal ana fu mu dem ñu ne Tiwaawoon kon maam Alaaji Malick Sy 1902 la dem Tiwaawoon la woon njarnde lépp mu yëkkati yóbbu jagsaaw ndax jagsaaw dafa gënoon a yaatu te gënoon a amuk dal foofu nag la ko taalibe yi fekk mu boole njàngaleem alxuraan ak liggéey ci tool yi xam yàlla dundee sa wërsëg lii mooy tijaan loola tax mu jàngal leen alxuraan waaye yamu ca jàngal leen xam seen diine waaye yamu ca mu jàngal leen mbootu wird looloo tax 1902 googu ca la woote gàmm gu njëkk ne nag nanu màggal juddub yonent bi sallallahu alayhi gàmm gu njëkk googu ma ngi ko defee ca Jaksa li nga xam ne doole la ju jox gàmm gi tax na ba tey bokk na ci ndaje yi gën a rëy mooy ndaje mi gën a yaa ndax fépp lañ koy màggale waaye nag moom la ñu dàkkantalee Tiwaawoon ak Tijaniya 1904 mu ubbi zawiya ca dakaar ana fu ko ubbi fa tubaab ba defoo ni bureau ci biir plateau ana mbedd ma nu tudd tey moom lañ tuddee avenue Lamine Gueye waaye zawiya yooyu da doon rek barabu julli waaye di barabu université yoo xam ne askan wi la ko jagle loon loolu moo tax borom xam-xam yi ci génn ay kàngama ca génn ay kàng fóore ca génn Seydi Hadji Malick si kon moo indi tasaare tasaare tijaniya tasaare l'islam ba dëkk boo dem tey bu fajar jotee bu nu wasifa nga xam ne yiwam ak liggéeyam agsi na fi waaye tubaab bi loola neexu ko woon ndax gis na yaatuwaay bi gis na dayo bi tubaab bi teg ko bët di ko topp fu mu teg tànkam mu teg fa tànkam bëgg ko lorte te mënulu ko dara loolu moo tax mu xaddam yu mag yi ndax mën nañ leen a lim déedéet kenn mënu leen lim mu xaddam yu mag yi nga xam ne jaar nañ ci moom tey jii ñoom moom daara yu mag yi sët yu yor loola moo tax yoonu Tijaniya foo dem da ko fekk taal bay tàkk waaye taal ba kenn mënu ci dara ndax lu tax fan ko teg a tax tubaab bi jéem na mënut mu bàyyi barab yooyu na nga xam ne mooy saw yi ak daara yooyu nga xam ne Seydi ak radiyallahu taala anhu ak ay muqaddamam ñoom ñoo ko sanc defe naa ni ña ca génnee kenn mënta lamlaale seen xam-xam ana Seydi Babacar si radiyallahu taala anhu ana Seydi Mansour Sy bal xaw mi ana Seydi El Hadj Ibou Sakho ñooñu rek doy nañ ci lim waxuma la ñu àgg ci Cheikh Tidiane Al Maktoum ba ci Serigne Moustapha Sy defe naa ne Serigne Babacar Sy Mansour Serigne Babacar si Abdou doy nañ ci. boo demee Jolof danga nga fa fekk njeexitalu liggéey bi nga dem Fuuta fekk ko fa nga dem Njaambur fekk ko fa nga dem Bawol fekk ko fa loola moom moo tax boo bëggee xam ko El Hadj Malick da ngay dem ci lim bind boo demee ci xilaasu zahab da nga fa fekk ni mu taggee yonent bi wax jaar-jaaram ba tax kenn du dem gàmm kenn jàng ko kenn du dem ci ndaje kenn jàng ko am na yeneen téere yoo xam ne jaruta lim waaye li ñu war a jàpp mooy téere yi bëri nañ mbind mi bëri nañ waaye woyof sedd baax yiw tabe am xam-xam moo tax ñu tuddee woon ko Maodo moom Seydi Hadji Malick Sy moo tax 1922 ba mu génnee àdduna ñëpp xam nañ ne jaamu yàlla bu mag ba dem na ñëpp xam nañ ne ku tedd ka dem na ñëpp xam nañ ne ka yàlla gërëm yonent bu gërëm ko sallallahu alayhi dem na ba mu fi jógee nag Seyda Babacar Sy nga xam ne mooy ñaareelu doomam moo ko wuutu nekk xalif ba 1957 mu jox xalifa gi maam Abdou Aziz Sy Dabaax xam sa démb xam sa tey ñu doon waxtaanee Seyda Hadj Malick Sy radiyallahu taala anhu di jàmbaari lislaam xam sa démb xam sa tey di waxtaan wu leen Goethe Institut may ànd ci ak archives national du Sénégal ak it Kër Leyti maison de l'oralité et du patrimoine direction artistique ak présentation Massamba Gueye assistant Abou Soumaré régie technique La Factory bu Ousmane Faye ci xarala gi Roland Sagna coordonnatrice Bouye Fall Goethe Institut